jërëjëf mbokk téléspectateur yi seetaan Bakel 24 ñu ngi leen di nuyuwaat ku ci nekk ci sa ak sa sant ñëwaat ak yéen ci seen émission bu mag bi émission entrepreneuriat daal di doxanteeg yéen fas yéene leen a àndaat ak yéen ci biir euh, fi nga xam ni lañu nekk tey di Louga indilaat leen lu bees tàq tey ñu fas yéene ñëw fi nga xam ne moo di kër Serigne Louga gannaaw raay tay ñu fassiyene dox ak yeen waxtaan ak yeen waye tamit présenté euh, len len li nga xamni ne modi moo seen émission entrepreneuriat fassiyene len leen présenté euh, lu bes tak lo xamni danaka duma ni duma ni euh, amu fi woon waaye tamit duma ni amna fi waye tam ki nga xamni mom mom ci kanam tuuti da ngeen dégg mak mom ñu and ci jotaay bi ñu présenter len ben ben ben bo xamni rek ben programme la bu doy war bo xamni ci biir la. ak ki nga xam ne moom moo di monsieur Ngom euh, bu ko defee ñu ànd ci ak moom euh, def ci découverte waxtaane ko waxtaane leen li nga xam ni moom maanaam dina gën a suqali dina gën a ñoŋal wàllu entrepreneuriat fii ci Louga euh, monsieur Ngom maa ngi lay nuyu. waaw ah, salaamaaleykum ak maa ngi lay ziar yow ak sa caméraman Serge maa ngi leen di ziar yi ñëpp leen jox seen wàcc wàccuwaay. naan leen dal leen ak jàmm fii ngeen egg seeg yooyu quoi. donc monsieur Ngom la jàngalekat la en même temps aussi dama yëngu sa affaire élevage ak yooyu quoi man yàgg naa si nag ndax aussi bu ngeen ñëwee si kër gi gis ngeen animaux yi fi nekk yëpp ñun élevage dafa bokk suñu deret ak yooyu quoi. sama papa sama maam ñëpp dama juddu fekk ñuy yar moo tax aussi ma si yar ak yooyu nag. léegi nag aujourd'hui dañuy waxtaanee benn élevage. keroog présenté woon naa élevage kaay bi. mais tey moom dama ñëw présenté leen beneen élevage boo xam ne mi ngi commencé développé au niveau du boo xam ne si suñu bi commencé nañ ko bu Burkina Faso ay Bénin ay Togo ay Mali ay Côte d'Ivoire mooy la race Goliath la race Goliath benn poule la poule boo xam ni dafa résistante ba pare aussi dafa gaam aw poids ba pare nen yi muy rey dafa rëy ak yooyu te aussi li mu laaj pour yaat bi méttiwul ak yooyu boo amee ay cage yu simple mën nga leen fa dugal te aussi seen lekk bi aussi méttitul desitu ñam yi nekk si kër gi ak ay mboq ak ay euh, ripaas ak lu des si kër gi daal mën nga leen ko jox ak ñu lekk ak la te aussi seen traitement aussi méttiwul ndax bu fekkee man comme ni utiliser ay laaj laay utiliser laaj bi ay xasukel ay moringa sab sab bi laa leen di jox te macha allah permettre ñu résistant résister si yenn maladies yi te ñëpp gis nañu korité bi passé muy bi deux mille vingt trois bi ak grippe aviaire bi seen poulailler man avant dugg na fi bi mu fi duggee quelques sujets deux xama trois la fi daaneel mais bi mu leen defee traitement boobu muy laaj bi ak kaane bi ak moringa bi macha allah ñoo ngi amatuma si benn perte ak yooyu la te sama morom mi nga xam ne yooyu la doon utiliser aussi macha allah gis nañ si ay résultats yu positifs ak yooyu quoi. ayca merci beaucoup monsieur Ngom euh, la fekkoon tey këram euh, ci seen émission euh, entrepreneuriat